jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñu sétane à travers Yes Média ñu ngi wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tay nak ah, ñu ngi fi ci kër Sidi Jaxaté ñu gën ko xam ci le promoteur de la cité du rail tay nag bu ngeen gisé suñu jotaay bi fiñu taxaw di ngeen xam ni bis bu mag bu Sidi jublu wat bis bobu moy bañ moy le 10 novembre bi ni jublu di am fan fé lay amé ci Kayar di drapeau kan moy adjoint maire Kayar di Mamadou Ba moom la di Diakhaté production di tëggal bis boobu mu war am le 10 novembre fee nga xamante ni mooy stade municipal bu Kayar Sidi nag taxawal na combat boobu muy combat bu mag mu dox ci diggante Ousmane Gandigal ak ki nga xamante ni mooy Mbisaan Jonn bu Tiwaawan tey nag ah ñu ñëwaat fii combat yi nga xamante ni ñoom lay toftal ci ginnaawam. mom lañ taxaw fi pour présenter len ko ki ci sama ndior moy Soxor Kele bu Thiès di champion bo xamanteni boko boo ci lamb kenn dootu ko laccé man ma daan ci càq ci lamb rek doyna woy bi mu fiy ak Modou Anta numéro 2 la won defe na ni lolu yagul nga xol ci sama càmmañ nak defe na ni moy xalé bi nga xamanteni moy joggé Kër Matar ñu gën ko xam ci malé bu Kër Matar defe na ni takusan gune tamit amna ko fi nga xamanteni moy hippodrome alaaj njow ma koodu Jóob la né rek ki nga xamanteni moy mooy euh, mbërum euh, Morolan bi ah nu mu di sax yi maa ngi koy bëgg fàtte mbërum Morolan bi mu njëkk a bëreel fii ci eh, kii mooy vainqueur bu nu la waxee ni la Malay moo ko daan fii ci hippodrome alaaj Ndiaye ma ko du Diop rek defe naa ne muy caatu limousine defe naa ne loolu rek doy na ab champion. ñooñu nag la Sidi Diakhaté boole kañ la leen boole dimanche lay doon le 10 novembre fan lay amee fii nga xamante ni mooy Kayar drapeau adjoint au maire Mamadou Ba jërëjëf ñu jublu ci Malay. ah defe naa ni kon soxor kele ngay dajeel dama bëgg a jox soxor kele mu dalal la comme lu mu gàtt gàtt moo nekk Thiès nga jógee Kër Matar baal ma jox soxor mu dalal la soxor salaamaaleykum. waaleykum salaam ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Modou Mbacke sëriñ Modou Roque yàlla na fi yàgg loolu téer di nuyu ñi fi teew ñëpp di la nuyu di nuyu waa cees di nuyu sama adversaire. waaw man la maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko eh. sant bu baax a baax. di ko dalal fii ko dalal fii ci Thiès. sa adversaire nuyu na la dalal la asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ginnaaw ba ma sant yàlla di jiitu seenante bi di sant waa Thiès gi di sant Père di Diakhaté di sant Pambay di sant euh, Cheikh mbay hmm. di ko sant bu baax a baax incha allah. Male nga jublu ci bis bu mag muy sa diggante ak Soxor Kele grand combat ba di dox ci diggante Ousmane Gandigal ak Mbisaan Jonn bu teewoon nga nar a waaj ci gox boo xam ni fa nga dëkk. nar a jógee fi nga xamante ni fi nga xamante ni mu ngay jógee Kër mataar jëm Kayaar ci wàllu waajtaay sa diggante ak Soxorkale nan ngay waaj. waaw sama diggante Soxorkale na may waajale combat rek laa koy waajal di ko wax ni man damaa fekk sama néeg fekk ma sama néeg nag génne ma fa yombul ndegam dama daa ñëw Cees fekk nit si néegam génn ko dàq ko ci biti surtout maa nga fekk ma sama gox sama biir néeg du yomb. waaw di wax waa Kër Matar gépp mm-hmm. waa Njëgën waa Mbisaaw waa waa. kër Moussa wa Bayax wa Kayar wa kër mbir bayuma kenn inshallah rabbi na ñew làmb ja rek tunu jander gi na ñew ja rek inshallah rabbi 2 minutes du ko am te tàqaliko maam lan nga na sa digante soxna no ki mom lima ma nar mom moom moom bariwul hmm. xanaa defal ko bagage daan ko rek amul leneen di wax Serigne Ndiaye ñangar bi yi mu ngi lay xaar bepp sëfoor bo yor nga dasia hmm. bayax wa Kayar ñi daw Mbambilor ñepp Malle seen doomu ndey comme Savor comme yéen mu leen di invité de journée ba yéen ñëpp ngeen ñëw. di wax ne amatina combat am naa komba wala amatina combat. am naa combat ñu bëri nag danoo yàqam di sama combat. Uh-huh. képp ku bëgg a seetaan sama combat ku bëgg a gis sama xeex sama bëre ñëw ca làmb ja incha allahu rabbi soxor xale bi wax na de ku biin waa Thiès non kii dafa baax rek moom bu nee taxaw damay daan si ay minutes ay ree la may def. mais heure bu ko Moussa wax def kon. non non mais kii daje nañ te aan laa ko éliminé quart de finale mbapat. Mhm. yaa ngi may dégg te ñoo bokk benn jour bu ñu bëreendoo bëre door mii Mañaa Soumaré may bëreeg cere càkk muy bëreeg maas booy Njuufeen. Mhm. boobu ba léegi nag mi ma topp di ma laaj. dama koy ñaan waaw dama koy ñaan dama lay ñaan. leen laa lay ñaan. du ndaanan nga da ngay yóbbaale top cinq leen laa lay ñaan baat bi nga taxaw dëggal sa bopp dañ ni da mën a bëre maa la dàq bëre aller retour hmm. te dinaa la jàngal bëre te su ma la ko waxee nag mooy loolu. waaw ah, mais kii damay laaj. li muy wax laaj moom moom yow mës nga maa gis ma reculer. mësuma laa gis nga reculer. fii si àdduna mës nga maa gis ma reculer. xawma de mais man nga maa reculer. barke alxuraani karim boo areerul ma duma la daal. yow da ngaa baax billaahi wal kitaab yow yow lu ma góor mësul def yow sëñ Babacar billaahi dama lay duma sax du ma bëreegul ak yow. yow da ngaa baax te si bëre lay jeexe far la maa waaw far la force si bëre lay jeex te dama lay duma daal. mais kii nee ma de ma fee yow man ngay waxal de. déggoo la ma sama eh, kër déetaa man ngay waxal. billaay dama lay duma. yow man ngee duma yow. barke sëñ Babacar dama lay duma. maa li wax rek de. xool nga soxal xool nga soxal gëlëm yi. barke alxuraan dama koy duma dara. fii laa la ko waxee kii bu arbitre sifflé du jéngi tànk yi. day daw. yow ñeme nga kii arbitre sifflé nga samp jaaga. su ma la ko waxee man musuma reculer góor. génn saako yi du ma bëriwaat. su dawul génn saako yi du ma bëri. façon jël yi ngay daan mën nga koo daan soxor kelem yi. déggoo la mooy gën a yées la jël ki ay xalu pour lay yóbbu top 5 yow man ngay waxal de. <laughs> waaw man de waxoo doom mit na fal ak tukar ak lañar ak gugren man ngay waxal. man ma la gëna dëkk ci Thiès. yow góor gu dëgër ngay waxal de nga nan ma ay. man yow di wo wa taw fal taw fal gi sa ginaaw la bayiko ko. barka alquran na lu la bi baana wo len ñi japp ci bis bi. wo len ñi japp ci bis bi. di woowaat sama fans club bi rek. 100 soxor kelay ak wa ties gep di wo ma wa Medina fal Tafa job Mor Dieng am di Fall Baye Saloum Cissé nan taxaw jug jàppale ma si kombaa bi alfa alfa dafa def lu am solo. Mm-hmm. waa si combat bi. waaw alfa dafa def lu am solo maa ngi koy sant bu baax a baax alfa alpha alpha li mu def si combat xaalis bëri la ma yónnee. Mm-hmm. waaw si béy. si béy lay dugg waaw mu doon ku baax. alpha borom juuti ba borom r ah. mu doon ko baax di woo tamit docteur Ndiaye maa ngi lay woo si combat bi docteur Ndiaye ah. maa ngi lay woo si bi Ablaye Dieye Papi Dieye maa ngi lay woo si combat bi. Mm-hmm. di woo Ndéla jaaykatu lujum maa ngi lay woo si combat jaaykatu jën maa ngi lay woo si bi Ndéla jaaykatu jën. di woo Assane Fall jaaykatu lujum. di woo sama waa koñ bépp di woo waa Thiès waa dina Fall Mëgay Gaajo Espagne maa ngi lay woo si combat bi Xaadim Saw Espagne maa ngi lay woo si combat bi di woo ah di woo maanaam Mouhamed Ndiaye maa ngi lay woo si combat bi Mouhamed Ndiaye dafa ma defal teraanga bërki démb damaa jékki-jékki seen seen sama wéef xaalis bëri <laughs> waaw maa sant bu baax Mouhamed Ndiaye Moussa Ndiaye frère Mouhamed Ndiaye maa ngi lay woo si kombaa bi Abdou Abdou Ndiaye frère mohamed Ndiaye ma ngi combat bi sama classe la ñoo fawandoo màggandoo ma ngi lay woo si combat bi wa pap dumbia ma ngi lay combat bi di wo autorité Thiès yëpp Birame Souleye job avant mi jël li ko yalla def ni daf ma won bama ñew mu jox ma xaalis wa mu jox ma xaalis beuri ñaanal man ndam nima bu fekke li lew na yalla na yalla may ndam mu don geste bu rafet barki dem re ma ngi koy fatali ma ngi lay woo si combat bi nga jappalañu wa nga jappalañu di ñaanal Anta yalla may ko ndam wa si barki muhammad sallallahu salaam combat bi mu jug. jërëjëf Mbale xale bi woote na de wane mbokkam de xaw ma nag yow. <laughs> man sama gox la may fekk. mais ay mbokkam de leen a wooyee. xanaa dañoo man maa ngi woo waa jëndër gi yëpp bàyyiwuma kenn boo nee jëndër boo nee Mali. kii woonee ministre woonee ñëpp. déggoo li ma la wax man soxloo ma ko ma dimbali la nit ñi seetaan ñëw nan ndagg bi yëy rek nan dag billet yi ñew rek li des lepp garaawul woguma yow dal nam dagal la yi rek mani ñom supporter yi ñoo ñoo dagg billet yi rek ñu duggé stade lool rek nga soxla lool dong la soxlo ma lenen amul dara lu ñaat nit wala ablay ciubu ablay ciubu ma ngi lay woo si combat bi Aline Fall ambassadeur Serigne Saliou mbake comme ni nga dan def ma ngi lay woo si combat bi bu baax baax di wo wa koñ be yépp gaa yépp nan taxaw juk jappalama ki da daa bëri wax waaw daa bëri wax jërëjëf kon mi ngi noonu ah, ñu moom la leen doon présenté muy ki nga xamante ni mooy Sidi Diakhaté production mu jëm féete Kayar drapeau kan mooy muy le adjoint au maire Mamadou Ba wara am kan dimanche lay doon le 10 novembre fee nga xamante ne mooy stade municipal bu Kayar jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay ba léegi ñu nekk ci présentation bi muy journée Sidi joxate production bi nga xamante ne ni moom moo jëm fële ci Kayar yam dimanche 10 novembre 2024 mu nekk première édition drapeau adjoint au maire de Kayar moom mooy Mamadou Ba. borom ñu ko waxee xel yëpp dina dem njoxob ak li ko wër muy jàmbaari fàkk tëdd ju nga xamante ni nii defe naa ni dootul ku ñuy présenté au niveau national sax laay wax moo tax structure bu mag bi di Sidi Diakhaté production déplacé wu fekk ko fi nga xam ne moom mooy Kayar bëgg ko fa sargal ci digg ay nawleem mais nag ci sargal bi yëpp dañ ciy woo aussi mu le maire moom mooy gaz Ndoye maire de Kayar ndax lii yëpp peut-être bu ko Mamadou mënee wala Sidi am fitu dem fa moom it am na ci taxawaay bu ama am solo ñu ngi koy woo ci bis bu baax a baax ak kul ko nga xam ne rek autorité nga bu bëgg développement gox boobu ñu ngi la ci woo bu baax a baax mu nekk dimanche 10 novembre 2024 foofu ci stade municipal bu Kayar mu nek bis bu nga xamanteni du bis bu ndaw ndax buñ né Ousmane Gandigal l'enfant série de Gandigal nga xamni ni samp na ndëndëm fi Thiès lu tollu ci fukki at la lu fi suuf bimu fi enregistrer première défaite digënté mak euh, Boy Jaxaw ci la fi gëj def retour persi di teug ko ni Kayar la koy andi premier retour Ousmane Gandigal mais kan la Ousmane di am muy xalé bi nga xamanteni ni 2018 ba légui momit it la lu souf muy l'enfant série de tiwaone mom moy Mbissane Dione kon combat bobu combat de déclenchement la ci Mbissane mais combat la bu nga xamante ne ni confirmation la ci Ousmane Gandigal muy bis bu nga xamante ne ni bis bu mag a mag la au niveau national ci wàlli làmb ñu taxaw ak ñaari xale yu nga xamante ne ni nag ñi ngi jëm ci spécial kii bu ñu ko waxee présentation du gudd bu ñu nee kan mooy sa mag ñu ni yi mi nga xamante ne nii ndaanaan la bu tëj làmb doy na am cëgin moom mooy Bébé Diassi moom it dëkk Kayar mais ci sama côté jor aussi di ndanan bu nga xamante ni buñ ne tubaatul rek xel yépp xamni bawal fofu la lamb fekk bax fofu la xalé bi di waré mom moy saaman di ndanan bu nga xamanteni fi le 20 janvier Milton baat ak tontu ba muy ndanan momit mo dëkk ci dëkk bi dama koy jox mu dalal ki nga xamanteni mom moy Bébé Diaz saaman ñi ngi lay nuyu. assalamu alaykum rahmatullah ñi leen di nuyu di leen ziar di nuyu di Euh, di nuyu persi di nuyu ñi fi daj teew ñëpp euh, di nuyu Père Pambay grand Seynou Seck sama ménagère maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp sama ménagère ñoom ñaar ñëpp ba ci Pam Mbeng eh, di nuyu Fallou Kelador di nuyu sama adversaire di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp ba suur la suur si mu ñëw ma defaral ko. xam incha allahu rabbi non xam naa ko nii nii ne rek. wax dëgg si maa fii tey mais la le 10 yow yaa koy dalal ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu Père Sidi Diakhaté ak ñi ànd ak maa ngi nuyu Moussa Diakhaté ak ñi ànd ak nii maa ngi nuyu tamit waa kees mi fekk Seck maa ngi nuyu bu baax a baax di nga ziar di nuyu sama adversaire di nga ziar bu baax baax. xam nga saman non saman xamna ko ndax yag nako sétan yag beug xamna ko bu baax baax. yag nga ko sétan yag nako sétan seetaan waaw moo ñu mag si am fuuf yàgg bëgg mo daanaka moom sama mag jëm tey ñoo bëggandoo rek wa bi muy bëggee boobu dugguma sax si am yàgg xam ko dama naan toog ne di ko seetaan muy bëggee mais bu ñu ba ba ak mom gam am boogeñu dañ ko def ak sante yag bu baax a baax a baax. ban Bébé lañ mëna gis le 10 nga daan bëre ci di génn tey ñu lay fekk sa dëkk. combat bi sama combat la ndax combat yi ma daan bëri yëpp combat supporter la doon mais combat bi sama combat bi ma ko jëlee sama bopp ndax sama biir dëkk la ma fekk si te xam naa combat bi tamit li mu laaj xam naa naa daan fu ne ci ko caaxaane ma ko bi ki ñu bis bi aussi nga am cër bu mag ci moom waaw ki ma tudde bis bi gis muy Modou Ba waaw mu mu bis bi mu ne mu nekk combat boo xam ne daal non du wax. balaa maa ñëw ci ci ci ki nga xam ne moom mooy adversaire bi bis boobu est-ce que beneen mbër war na war na duy stade bi bu dul Bébé Diassy. non gars yi moom bu ñu yéexee ñëw moom yaa nga xam nañ ne seen supporter na ni bu ñu yéexee du am fu ñu dugg gépp ñëppay génn may moom ma ñëw ci caf ko lamb bi nag saaman waaye nee na këram. Ah. nga koy fekk te ku yéex a ñëw doo dugg. kon géew nga xanaa matutoo waaw di nuyuwaat sama plein euh, Fallou Clédor champion di ko nuyuwaat di nuyu. gaa yee nga wax sama booy màndal di wax adversaire bi li ma koy wax bëriwut dama koy xamal ni ko dëkkam laa koy fekk kàttanu yàlla suñ borom defaral ko. billahi wallahi inshallah allahu rabbi dëkkam la koy fek bu yexé mom day wax ni supporter mais bu yexé supporter du ñam am fu fu taxaw bay seetaan combat non déggoolu ma dama ni dama ni pambe nga man xam nga man duma guddel supporter duma yagal supporter man ari pirip bip la xam arbitre bu soufflé bo delluwut ginaaw mu jeex ci seconde niko déclarer won ñep delu nañu li wax dama na li man duma yagal adversaire duma guddel supporter duma ma gudd du euh, euh, làmb daal du ma ko guddeel du ma ko tardeel kenn. waaw sa adversaire nee du guddeel làmb du tardeel. maanaam làmb ji neex na ba pare xam nga tax làmb ji neex kii yaa nga min tim xam ne ba ëpp ne fekk mu dox sama kaw làmb ji day jeex barke alxuraan man xaaral laa dan maa yónni yàkkamti ma. pewu sax pour kii man kàlla doom mii mi ko indi moom laa soxla yàgg naa kaa man boo bëggee dëgg-dëgg man maay caatu kii wu Kayaar barke alxuraan képp ku taxaw tund jëndee gi bu nga fontoo IKEA man man man man ngay jël ba pare kii du ma am moom bàkk Sëriñ Tuubaa bu ñëwee pour bëre si yàlla xam ne du bëri une minute te li mu wax ni na ko dëggal bu subaa ñu bëri man ku ma xam xam si bëri nga ma xam jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ko Bébé si la saamaan la tey nag ñamalit la rek pour ngeen gis ñu fisale mais rendez-vous bi bientôt la du yàgg di ngeen dinañ am face à face bu maga maga mag dama leen di jox ñom ñaar kenn ku ci nek wax sponsor bi nga xamantene ni yag na gungé persi di jaxate ko xam persi di xam ko ak sponsor yi. waaw muy mera Madar waaw mera Madar manam mom ku ne xam na ni persi di ak Soko si ñom ñaar mom vraiment yag nañ te dañ leen di ñaanal yalla ñu guddu guddu fan bu baaxa baaxa baax dem ba persi di jox ko ay wa këram ni leen doxal leen man mëna tuma loolu lañ koy ñaanal yalla avant tout nak di wo sama monsieur le sama monsieur le Ahmed Dieye maa ngi lay woo 96 villages yi bëgguma kenn des maire dama bëgg oro yi na nga ko doon doxalee nga doxalee ko nii fa mu daan jaar na fa jaar ma def la ma daan def indi la drapeau bi kàttanu yàlla suñu borom di woo sama mboolem koo xamante ni bii rek yaa ngi bëggee saamaan rek saamaan mi ngi lay woo woo waa Madina Fall Kawsara Fall euh, Tiawan di woo Ndukumaan ah di woo Dakar sama booy nekk dakaar yëpp maa ngi leen di woo fan si club bi na na ko teel yàq na ko teel yàq ñu def nañ ko daan defee jaar fam daan jaar kàttanu yàlla suñu borom fekk fekk bébé jaasi dëkkam wan ko ni ko doo matoo jaasi bébé nga ba nga nee bébé rek la jeexan pour mu ko leer mi ngi noonu Sococim di ciment bu nga xamante ne nii yàgg na ci Sénégal mais nekk partenaire ci Père Sidi nga xamante nii ku xam Père Sidi rek xam ko ak Sococim lan nga ci. waaw xanaa di si bu baax a baax di wax ni làmb bu demee tax a baax di leen sant ñu gën a jàpp rek ñu xeeb ko di gën a jàpp ndax Père Sidi moom nekkoo fu du tund jëndeer nekkoo fu du bëgg jëndeer nekkoo fu du bëgg Sénégal te wax dëgg yàgg fu ñu toog ci làmb rek ginnaaw yàgg moom bay na ci waaram bu bëree bëri di wax naka gën a gaay gën a gën a jàpp rek gën ko geesu xam ni lépp lu ma liggéey ci làmb rek dugalaat ah, di sant du ma fàttee di sant du Ba bi nga xam ne tey maanaam bu ñu amee combat di ci def lu man ak lu mënu ah jël ay kaar loo soxla si kaar ma jox la di sant monsieur le maire Gass Ndoye di sant autorité Kayar yëpp ñoo leen sant bu baax a baax a baax. di leen wax di leen ak original bi wax leen ci ndax waaw comme ni ma ko waxee rek ñoom moom làmb moom fu mu mën toog rek Sénégal rek jàppandi ñoom ñoo si jàpp moo tax mu doon dox wax dëgg yàlla mbëri gi nii indi isaat mën ta fay wax dëgg yàlla ñoom ñoo jàppale promoteur a am doore. moom mooy As Ndaw borom dëkku man. waaw As moom kooku moom kooku moom koo déggu xam nga. boisson original doyul léegi Cobra moom koo déggu xam nga ka ndax ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ sax dégg nañ turam baax mi def Sénégal asman as borom man moom boo juddoo rek da ngay xam da nga xam bu baax ndax lu baax mi def Sénégal di wax na gën a yokk goxam xam ni maanaam ñi mu koy defal tamit ñoo ngi ges ndaw ñi ndaw ñee tax ñuy sonn ndax bu doon seen jëmm rek mënoo dem toog mais yaa nga xam na ni bu ndee sonn ndawi Sénégal yi moo tax ñu gën a a gën a jàpp gën a gën a teg goxo waaw Cobra bi ak ak boisson original Cobra boisson As Ndaw borom du kumaan koy ñaanal rek euh, te xamal ko ni ko ni li muy def ndaw ñi gis nañ senes bi xam nañ ko gis nañ ko vraiment parce que mu ngi jàppale Père Sidi di jàppale keneen ak keneen te ñi ñuy jàppale ñi ci ndaw ñi doon lañ koy def xam nga ñun ñi yaakaaru lu dul làmb làmb rek lañ xam moom la ñuy dund kon ku ñu ci jàppale ku ne ku li jàppale euh, Père Sidi ñoom ak ñi mel ni ñoom kon ñun nga jàppale ñun ndaw ñi voilà di ci woon ak sama benn copain As As Diop marché bu mag muy jaay marché mag as maa ngi lay woo combat bi xamal ni saamaan am na combat sa combat la te day déplacé wu fekk ji adversaire bi kon as mu ngi noonu ngeen jàpp ci combat bi waaw waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfalaat bu baax ba léegi rek ñu ngi ci journée Sidi Diakhaté production ñu jëm li nga xam ne mooy le 10 novembre fële nga xam ne mooy Kayar grand combat bi war a dox ci diggante ki nga xam ne mooy Mbisaan Jon bu teewaawoon war a cee jàkkaarloo ki xam ne mooy Ousmane Gandigal bu mu doon bis bu am solo waaye gis ngeen yeneen combat yu am solo yi nga xam ni ñi ngi ci biir bis bi diggante Malle ak ki nga xam ni mooy soxar kale war nañ cee bëre waaye diggante Bébé Diassi ak ki nga xam ni mooy saamaan war nañ cee bëre mais ñu taxawaat beneen combat bu am solo mu dox ci ñaari xale di ñaari champion muy première édition rc au maire de Kayar Mamadou Ba ñu koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax di nuyu sponsor yi nga xam ne ñi ngi ànd ak Sidi Jaxate production muy boisson Cobra ak Sokosim ak Mera mais tey ñu taxaw ñaari xale yoo xam ni ñoo war a laale le 10 fële nga xam ne mooy Kayar war dox ci diggante ki nga xam ne mooy caatu bambara booy bambara féete ci suñu gos ak ki nga mooy caabi Sénégal féete suñu droite bala ñoo sot rek ñu bëre jox ki nga xam ne mooy booy bambara mu nuyoo nuyoo ak adversaire am mais nuyoo ay supporter am caat nuyu nañu waaw maa lay fay ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonente bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama papa fu mu tëdd gënal ko fu mu jógee moom mbooleem yaay yàlla suñu borom guddal fanam waaye maa ngi nuyu aduna di nuyu képp ku fi ne di nuyu nag sama waa dëkk waa kër Karamoxo maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama mafia bi mafia booy bambara bi ah di bëggee sama ñaari gars yu ma àndal mbës Baye ak Leñ waaw ah, di wax daal en tout cas am na combat daal incha allah le 10 ci kàttanu yàlla di nuyu sama adversaire bu baax di ko wax ni maanaam am na combat bu baax bu baax daa am fu ñu jigee ko waa luñ bu bëri na xam nga ci dara waaw waruñu daanu daanuwaat waaw maa ngi bëgg ñëpp nice. aja caabi Sénégal ziar naa la. waaw delloo sa ndagam. bu wér a wér kay. lan ngay wax sa adversaire. waaw kii benn jooy la. ne souvent moom gars xam nañ ma ko waaw. mën nga maa ëpp maat mais buñ demee si géej gi ma foowee la. jigéente leen tuuti yéen ñaar a a daa a la ñuy def daa war a neex. sa waay dama lay duma dama lay daan. da ngay daanuwaat. man la làmb gën a soxla. billaay wallaay da ngay daanuwaat caabi Sénégal kii yam na la kii xanaa xamu la. kii xamuma kii xamuma. ah barke alxuraan kii bu Zourba naa ko wan ne téyewul ren ay mbokkam téyewuñu ren. dama kay daan ba dëpp ko. kii mooy borom xam nga xam nga lamba jëyet jàll am na lu ma waxoon gaay yi du ma nag balaa jour yi ñi ko ko waxaat samedi jour làmb ji dama dimanche lay doon samedi samedi doo nelaw borom jinni yi maa ngi koy woo làmb sama yëf la barke alxuraan booy ngeen bokk contact laa di daane ba ñuy jeex ñoom ñëpp koroma xoola dëkk de <laughs> Garmin Ndione mooy sama papa borom jinni la mara des peuples non kii seen dëkk moom ñëpp ñun dañuy fanaanoo faj ba bët set ñun ñii man moo fay jógee damay liggéey dañuy faj chaque jour kii du ma si dara derbi de junne la barke ba mën a délee ba mën a ubbee wóole la waxuma loolu de ay ki daaw kañ faaw mbaaw nen caabi Sénégal baaji kaali bi nit yaaw beenaana doo dërëm on s'en fout wax na de <laughs> barke alxuraanu karim booy ngémbu contact déggu la ma laa ngémbu contact laa koy daanee sama ngémbu làmb duma ko ko indil parce que jaralu ko billaahi wallaahi wa taala booy tey ñu ren ñii duñu duñu ay mbër kii daa tardé kii mënul dem fenn ci lamb xale bu ndaw la Serigne Fallou Mbacke sama mag a ngi ne xale bu ndaw la waxal xale bu judd 2003 yow ki daan ki ma daan lamb jee jàll dërëm boo tawee moom si mbedd xoolal mu jaada loola man booy ponk ponkol yebu ma barke alxuraan lamba dama kaa terbiyu Paul Maurice mooy sama mag. Paul Maurice numéro 2 mooy sama mag lamba dañ cee terbiyu fu ñuy génne ci àll bi di ko jëlee barke alxuraan boo fa demee premier tour gars yi dëpp gars yi dëpp la nga loo am ci lamba lamba ci dara. seen kër boo fa demee yeewoo fa nag. seen kër yeewoo fan nag faa war seen kër boo fa demee yeewoo fan nag tànk yi daan barke alxuraanu karim bu jur ba dama la koy tegal nga ñëw ma daan la maa woo maa woo waa Pambal ñëpp xam nga di woo waa Kiwi maa woo waa Pambal yëpp di woo waa Kiwi di woo waa Tëngéej di woo ñëpp xam nga di woo sama gaa yëpp si combat bi ma fi yaay caabi bi waaw ak sama safaru kab yooyu yëpp. yi ma yóbbu sama mobilisation lan lañ mën a xaar ci yow parce que gis nañ sa combat bu mujj. Ah. li ngay fi indi ci mbooloo moo yéem ñëpp. may borom kab yooyu heure bu ma heure bu ma amee combat li may jaay si bolok benn mbër du ko jaay benn bolok musuma topp ci làmb laa jël ñëpp bu ma amee combat benn bee du ma topp. boo yi mënuñu sa jaay benn bolok. kii nii barke alxuraan mënuñu ko jaay benn bolok bu jeex. Eh, kii la ëpp mbooloo. waaye kara doo ngaaka ah? sama koñ yow nga sama dëkk yaa ngi dégg lu may mobiliser samay morom duñ ko mobiliser nee na moo la ah nee na moo la day xaar nañ def bu làmbu jaa ay supporteram nañ ko ber ber samay supporter nga xool samay supporter dañuy duma ay supporteram mag seen leader si biir géew bi ma duma ko daan waaye man xale laa waaye maa ngi woo waa Mbambar kër Karamaxo di woo tamit waa Kër Mandiaye waa Kër Madar waa Mbeyen waa Kër Matar waa Touba Pego waa arrêt Kër Mandiaye bi ah du nuyu waa tableau 6 heures coxeur yi si war jagartaay si war rallimaan yi seen Topin am na combat incha allah booy bambar le 10 waaye na xam nga maa ngi ci saag teewaay ñëpp di ñaanal suñu papa Siri yàlla suñu borom guddal fanam wëral cëram di nuyu képp ki fi toog di ñaanal champion yi fi ne yëpp di bëggee waat waa Mbambara di nuyu waa murit gi bu baax a baax di leen woo ah di nuyu sama coach bi fee Diallo Matar Fall Grand Aline Gueye maa ngi bëggee waa écurie écurie bi yëpp lan ngay wax parrain bi Mamadou Ba premier artien au maire waaw waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm xam nga guddal fanam waaw lu mu lu mu def ren yal nag suñu borom jàppale mu defaat ko déwén xam nga di ko ñaanal baax a baax di ñëpp. caabi wooteel. waaw maa ngi woo waa central kunun yëpp am nga di woo waa mbaar ma am nga ñoom Assane ñoom Thiaw ñoom Lamine ak njaga seen saltigi maa ngi koy woo si combat bi nga di woo gars yëpp ñoom Modou Kërëleur ñoom Assane gars yi ma leen di woo si combat bi ñoom Ndiaye maa ngi woo gars yi doon jàpp si combat bi ñu ñëwaat jàpp si combat bi waat waa kii bi yëpp di leen seen doom amati na bés maire yi comme combat bi rek na mandé comme li ma doon waxoon combat bi waaw lan ngay wax parrain bi. waw parrain bi waaw mu ngi koy ñaanal waa bu jour waa xam nga moo loolu. Mhm. aja joxante leen loxo. maa ngi nuyu waa Mbambara bu baax Pate ñaa maa ngi lay woo si combat bi ah di woo tamit Fodé Camara maa ngi lay woo si combat bi di nuy waa Kër Karamoxo amu seen fay maa leen di woo baax waa Kër Karamoxo man amu ku dul fu dul Mbambara a ma def nii Kara musuma génn fenn Mbambara laa juddoo fa laa màggee fa laa yoroo fa laa doonoo mbër ñëw nga fa xam nga fuñ ma teg. maa ngi leen di sant di leen gërëm. mu doon bis bu am solo. Sidi Diakhaté organiser ko fële nga xam ne mooy Kayar tey mu taxawal ci grand combat bi diggante Mbissane Dione ak ki nga xam ni mooy Ousmane Gandigal waaye yeneen combat yu am solo yi nga xam ni ñi ngi ci biir dox ci diggante Soxor Kale ak ki nga xam ne mooy Malé bu Kër Matar waaye xam ngeen war na cee jàkkaarloo ak ki nga xam ni mooy Bébé Dias ñu taxawal beneen combat bu am solo diggante Siteu bu Mbijëm ak ki nga xam ne mooy Fugu Bari di ñaari xale yoo xam ne ay ndaanaan lañ ay champion lañ mais bala ñoo sot rek dañuy bàyyi ki nga xam ni mooy Fugu Bari mu dalal adversaire am muy Siteu bu Mbijeen fukki bari nuyu nañ la. maa lay fay Kara ginnaaw ba ma sant yàlla julli Yonent bi di santaat samay ñaari waajur di santaat sama waa koñ di sant tamit képp kuy jàppale fukki bari di sant tamit ñu fi nekk ñëpp di santaat sama copain Amane Mbaye moo fi àndal di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. Siteu bu Mbijeen bëgg naa la. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf tubaa Touba gàcce ngalaamaa si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul garab yi ñu ngi lay bëgg baax di la ñaanal jàmm te di si yéen ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an bëgg la Grand Frère. fu ko bari. lan nga wax sa adversaire Siteu. waaw di ko wax tamit am na combat barki Serigne Touba dina wax am ko combat nag. yow nag amoo combat. Kara man xam nga bu baax a baax. waaw man daanaka am nu mu demee na rek moo tax muy bëreeg man. man kay xam naa la mais Siteu mii moo la xamul. moo la xamagul voilà ah, na ma laajte nag barki Serigne Touba foog a bari la bu Thiès dugal Facebook TikTok Instagram foo dugg. waaw recherche ma di ma fa fekk bu la leeree ne nag am nga bu bu rëy am nga combat bu rëy barki Serigne Touba. booy waa ngi lay napp de. mbooloo nangu sa mburu wóor na karim nga nangu sa mburu càpp sa mayonnaise wóor karim buñ bi jëflantee bis ba di nga ne maa man maa la doole kii sañ ngaa nangu mburoom càpp mayonnaise tabaski léegi tabaski léegi douze combat la bëri maa daan tabaski léegi douze douze combat barke alxuraani karim moo yaakaar bul wax loolu kii di billaahi wallaahi taala gaa maa man fukki junni yoon maa la ma sa sa gaan demi olaajul yow moo xamoon ne comédien nga sax du ma la jël nga naa ay dagg si. kan mooy comédien la. 12 combats diggante fii ak tabaski ak ay dagg mooy sa mburu daggul sa mburu boo kii foog bari la de. barki allah ji faral arrêt bi. bilaa amul arrêt barke Serigne Touba doo ma daan. bilaa boo ñëwee fii di nga xam daan. jandeer laa dëkk maa ngi woo ñëpp nag kooku doole yéen ñaar kii damay moroom kii sànq ba ñoo koy jox mun taxaw si biir di xaar xaar da ngaa sidi dama nga faju ji damaa sidi dinaa faju ji ah, waaw baax na mais barki allah ji faalu dama lay ah. daan par force bu neexee suñu borom dama daan incha allah rabbi naa la naa ba nga réer war naa alxuraan ka daa xabare barki alxuraan ki daa xabare billaa wala daa su ma la dóoree da ngay dee yow na alxuraan su ma la dóoree su si ma doo jóg war na alxuraan karim Pambaay su ma ko si ma ko du jóg. nga naan may foofu si ma ko du jóg da ngaa na ba ñëw. wallaahi duuru du jóg yow. xamoo ma yow. sa loxo yi laax maa ngi woo waa ka sëñ Modou yëpp nag waaw waa ka sëñ Modou woo sëñ Modou Missé suñu xalifa bi sëñ Moutala sama sëriñ imam di woo sëñ Abdoulaye général di woo ñëpp ku sant jàmm maa lay woo di la ñaan waa nga ñaanam si combat bi ñaan imam Baye Moussa Mbengue ñëpp waa mbi dem gépp sama waa dëkk waa Morola du leen fàtte sama dëkku maam ñu ngi woo ñëpp yàlla may ñu ndam si barke Sëñ woo bépp chauffeur Dacia chauffeur Bayax yëpp chauffeur daw Tëngéej arabilal teer ba bépp chauffeur buy xëy rek doo daw war maa lay bëggee di wax nangu sa ñëw na xale si chauffeur yi maa ngi nii. kon joxal gars yi rendez-vous ma duy kaar ba fees ma yëngal daan ko incha allah rabi. rajo bëgg na. waaw maa ngi woo waa Manda Fall di woo tamit waa Loyen gi yëpp Baye Fall yëpp maa ngi leen di woo di si jiital tamit sëñ Cheikh Lo borom dina baax maa ngi ko woo ci combat bi di ko wax combat bi combat la na ci gars yi jàpp baax a baax a di ci woo tamit waa Ndar Fall di ci woo tamit sama waa Are di ci woo tamit waa di ci woo tamit sama waa koñ di leen wax seen dërëm yeeg cent franc yi ñu commencé kaa dëggee la da xam ne bis bi yëpp bees. non béy moom seerul deux mille franc la. day jeex barki sëñ Fallou yaakaar bu baax a baax. voilà. sa loxo yi baaxul. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ba léegi ñu ngi ci présentation yi nga xamante ni moom mooy journée Sidi Diakhaté production yem ak dimanche 10 novembre 2024 fële ci Kayar mu nekk première édition drapeau adjoint au maire de Kayar moom mooy Mamadou Ba. l'enfant série dañ joxob muy jàmbaari fàkk tëdd di ndaanaan bu nga xamante ne ni defe naa ni tund Kayaar ak li ko wër dootul kuñ fay présenté muy bis bu mag bu nga xamante ne nii ñu ngi ciy woo monsieur moom mooy Gass Ndoye nga xam ne moom mooy maire Kayar defe naa ni taxawaayam am na solo moom it ñu koy woo ci bu baax a baax di jaajëfalaat père Sidi Diakhaté bi nga xam ne rek yaa ngi ci biir structure Sidi Diakhaté production mbokk yi nag ñaar ñi ma taxawal ñaari ndaanaan lañ rafet jël bu nu ko waxee waa ngent yëpp jug Thiès ak li ko wër mais defe naa ni soq bii bu ma ko waxee toglu suun ak li ko wër ñëpp aussi jug muy ñaari ndaanaan yi nga xamante ni neexoon nan ci jëmm mais xam naa ne bu ne runkum daje mbir dina xew balaa ma sori damay jox rafet jël mu dalal ko rafet ñu ngi lay waaw ñu ngi lay fay waa di la euh, jox sa wàcc waaj salaamaaleykum maa ngi bëggee ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi teew ñëpp maa leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant waaw di ziar ñi nga xamante ni Ousseynou Seck sama ménagère maa ngi koy ziar bu baax a baax. kii moom Pa Mbengue amul ma leen lu may wax moom instant yi billaahi. xam nga soq bu siin bi. soq bu siin man soxlawu ma koo xam parce man boo man lu ne. def naa ko si làmb man xale laa rek kii taxumaa jug billaay wallaay kii taxumaa jug leneen moo ma taxoon a jug mais du pour kii bañ am combat rek moo tax ma jël ko mais kii moom wax dëgg yàlla sama bët jël na ko quoi bu dëgg dee dëgg rek kii maa ko mën maa ko mën maa ko ëpp doole ci kàttanu borom bi te bu ma ko jàppee làmb ji jeex billaay wallaay soq nuyu naa la waaw maa ma sant yàlla jël ci sant sama ñaari waa bu baax a baax sant tund moo jóge sant waa Paloor yëpp mante ne yëpp maa ngi leen sant sant waa Géej waaye parcelle lépp lu ko gaa yëpp kii la muy wax ni yëpp newal ci moom mu ngi jël micro du wax di lox godaale ma ngay waxale man di ma yooyu rek bi mantine mantine bi la daw rek amulaare la gën a yokk xab doo waaye daa mën a doon xale bi maa ma maa ngoy dégg nag muy ndellu naan ay ma damay dugg si àll bi wuy ma may ma maa ngoy dégg muy naan damay dugg si àll bi damay mbappat ak damay yi man yooyu yëpp ma man maay borom àll bi bu dee àll bi rek ngay wër man maay borom àll bi dajal nga boo wëree yàlla boole nañu bu laamu jaar dinaa la jàpp dina la duma dina la daan. saa yo doo pousse doo passe. barke sen na ma gëna wéx a yow lu muy laaj ma ngay def ci kattan. da ngay xaar ma da ngay xaar yow sa garam da ngay xaar. ma maay ambiance man duma ak yow da ma ngi sa garam bi la mais man. maay bëre maay daan sa yo taxaw ma jóg de wala japp la jàpp laa fudul karaw. waaye loolu waxu loolu waxu mbër barke sen na ma la ko la doole maa la mën. da ngay xaar yow ma la ko la doole maa la mën. sox kaay ni ma la. saa yoo man duma ma yow de. bi bi matinée matinée bi la barke sen na ma la gëna wéx weex gën doon xalé xale bu ndaw après ngay xam waaw di sand sant waa ngeen di yëpp sama gaay yëpp waaw ku si mel ni Malick Gueye xam maa ngi bëggee di ko sant Moussa Baye Sora gars yi daal awuma seen fay waa écurie ambulance yëpp waaw maa bi maire Amadou waaw sponsor bi moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfal di wax lii moom wax dëgg yàlla lu rafet la di sant borom du commande nag Cobra avec original waaw ñu ngi koy bëggee baax di leen wax ni lii rafet lu rafet la yàlla na fi yàgg Père Sir Diakhaté ñu ngi koy musuma bëre journée nag te tey ah, jii c'est la fois c'est bëre euh, combat Sir Diakhaté euh, ko def kaay te insha allahu rabbi Sir Diakhaté maa ko nar a indil loo xamante laa ñëw course sama wetu dëkk la ñuy bëree da nga koo fàtte. Ah. pir su ma jugee pir jug tiwaawoon jug njëga jug mewaan jug jàngaar jug foofu yëpp maay borom kii moo tax man la li may yóbbu moom attanu ko après lay comprendre nag bu demee ba tëdd nelaw lay comprendre bu yeewoo xam ni rafet jël bu ngeen lay waxal su jugee ngeen di jug waa are mambamba jug waa rompe ngeen jug su ma ko jàppee maa mu wax sa sponsor bi soo ko sim bi loo si rafet na def na lépp sénégalais la. mais Cobra bi nag ak ak ak ak original bi as la borom du waaw ñu ngi koy félicité bu baax a baax di nga naan yaa ngi jàppale ndaw yi cest gis nañ ko rafet na bu baax a baax di nga encouragé. ci ci xëy na waaw suñ bonne mobilisation lañ mën a. kii mënul am mbooloo kii mënul am mbooloo barke yaa ba suñu ma mboola man. per jama trois trois talo bar yalla ma jaago suweni la sa xaliss say man ngay waxal ma la bolam bolo fop mais talo yoy ni ko ni ci japp wo len wo len way man sama ay xale la am ñoy ko dima jox may lek di sant ñeug di sant sama garaaye wa sun geejay way parcel matine matine yeb tunu palor bi cambox wo ñepp fen mantene sin kadior yeb ma len di wo sen dom sokku bu sun barki sen yo sa mu no am luma yem wool ñu ciy jàpp wool ñu waaw man maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw maa ngi woo Assane Ndiaye Assane Ndiaye xaa maa ngay koy woo ni ko sa doom nday sa nit am na combat Assane maa ngi koy mu jàpp si béy waaw maa ngi koy sant bu baax a baax mu jàpp si béy mu da asu maa ngi woo di ko wax na jàpp si béy sama waa village nag ma leen wax ni leen yéen ñëpp nag ngeen jug seen doom rafet jéel am na komba bëgg naa nag ñëpp jàpp si béy waaw bàyyiwuma kenn daal gaa yëpp moo jeng nga la wax ne la jugal am nga komba sa doom am na komba rafet jéel na jàpp si béy waa Italie Cheikh maa ngi koy ni ko moom tey moom moom wax dëgg yàlla bëgg naa ma jëndal ma trois bloc daan na ma jëndal benn mais damaa bëgg mu jëndal ma trois bloc seex bu seex bu ngent maa ngi koy wax mu jàpp si béy combat bee passé mayoon na ma xaalis mayoon na ma xaalis damaa bëgg mu gën koo yokk bii paa moom ñaari bloc laa ko sas carré nag incha allah gars nañ ma si jàppale bu baax a baax parce que des fois bu ñuy dem dañu am carré day fees ba ñeneen taxaw dañu am yeneen carré yooyu yëpp maa ngay wax gars ñu teel see jàpp jàppale ma ma dem jàpp soq bu siin bi xaw ma soq bu siin xaw ma maam bu siin ma jàpp ko daan ko jël bu rëy wan ne ko man ma moromam si làmb man daa am fu ma teg sama bët si làmb billaahi kii taxumaa wër naa waaw di sant sama kosu bu baax a baax di sant Issa Bo di sant Malick mais sama grand yëpp maa ngi leen sant bu baax a baax Issa awma fayam parce que bu sonn ci ñun la waaw di sant suñu père bu baax a baax père li ngay liggéey rafet na gis nañ ko yal na yàlla taxaw di sant Malick bu baax di sant sama grand ñoom Sall ñoom Paa ñoom gaa yëpp tund paloor bi yëpp sant ba sama diwaan waa Bagala bu baax a baax maa ngi sant paloor gi yëpp maa ngi leen sant bu baax jël leen photo di nuyu di leen ziar joxaat seen wàccuwaay ba léegi ñu nekk ci présentation bi Sidi Diakhaté production bi nga xamante ne ni mu ngi jëm Kayar yam ak dimanche novembre mu nekk première édition drapeau Mamadou Ba adjoint au maire de Kayar duñu ci tàyyi dañuy nuyu ba léegi monsieur le rek moom mooy gaz ndoy nga xam ne lii lépp bu fa mënee am rek moom moo dalal xeli promoteur ba ni day déplacé ñëw ci fi nga xamante ni foofu mooy gox bi nga xam ne moom mooy kilifa di woo ku lu ko nga xam ne rek autorité nga bu ne ci tund ba le 10 incha allahu rabbi événement bi foofu la du ma sori damay jox Milton mu nuyu ki nga xam ne moom mooy adversaire am di saafandu mooy borom ñaari nationalité boroom borom Diourbel Thiès ak ak ak ak Kayaaran ah. Milton ñu ngi lay nuyu. lamb namm na la nag. waaw maa leen di fay maa leen di fay maa ngi nuyu assistance bi teew yëpp di nuyu waa Cité Senghor R100 fi ma jógee daal di nuyu sama mbokk mbër yëpp waaw di nuyu champion Saaku Ciment xam nga di nuyu Demba sama pérés yi nga xamanteni mom moy jënd sama ticket yi affaire yoy nonu moy lool di nuy sama adversaire bu baax a baax. atia. saafara ah, waaw ziar na ñep bëgg ñu di ziar bu baax baax di bëgg ñi andal bu baax baax du ziar wa jurbel bu baax sama dëkk ak wa Kayar ma joggé ak Thiès gi fa fi ma nekk ni di ziar wa àll bi di bëgg ñep di bëgg mbir mi xam nga Milton. non non soxlawu ma koo xam sax. ndax xam nga ko. non non soxlawu ma koo xam. militant xam nga xam nga xam nga. saafaan saafaan non non dama koy doon dama ko doon dégg rek mais xaw ma ko quoi mais bu soobee yàlla incha allahu rabbi bu <laughs> bés ba yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm rek yàlla may ma dam ci kawam. mais lan la Milton nar ak lu mu waaj parce que am na ci lu mu jóge te am na fu ñu koy xaar ci lam waaw xanaa comme dab rek li ma tàmbaloon samay supporter ca loolu laay delluwaat rek ñëw attaqué ñëw koñe ñëw gañe man noonu lañ ma xamee. té bu soobé yalla inshallah rabbi non lay jowé bu soobé yalla nga koy fekk ji fu nga xamné ne fii la waaw loolu du ci dara ndax lool ak lamb ñoo and bon bëri mbapa tamit non la da ngay génn wali yaan dëkk jambour dem yalla mën na la sutural nga am fa dara dal non da comme non la ko jappé rek waaw bu soobé yalla incha allahu rabi. ngay recevoir militant sa dëkk muy mbër mu nga xamante ni mbër mu danger la ku ko xam ci jom la ko xam ful la fayda neexal bis ñeme xeex ñeme bëre car macha allah est-ce adversaire boobu recevoir ko dina yomb na. man kenn jaaxal ma benn adversaire jaaxal ma toog ma fekk sama dëkk nag laal nga laalaake dama lay duma daan la. maa ko ëpp doole maa ko gën a fee taxale a xeex de te ñeme. kii maa ko mën fuuf xawuma ne yéen xamaguñ ma de mais kii maa ko mën fuuf. arbitre soufflet duma ko may dara. dama koy dama koy du daan ko. du am mille cinq. jege si ne loolu kenn musu kaa wax Milton. mille dégg nga li adversaire bi wax. waaw Safandu li ma lay mën a garantir mooy man xam nga mbaxalu xeer mbaxalu xeer sam waa ji kenn du ko sàqamee noonu gis ma nii rek. ma ñew ni gaay xawma ki ni kii ma xaw sedd ni affaire ni nga japp ne may duma rek dam dina la dóor a xana xanaa ñu fi ñu fi jóge laajoo leen laajoo ñu fi jóge barki demo jaay laajoo leen laaj leen. saafaan daa mel ne xamul xamuma dóor naa nit ba sapeur jël ci ko da ngay ré <laughs> ya ngi ré sa musiba. man ma lay door nak ba sa poor jël ci la. ya ngi ré sa musiba. man beru man. do ilaha illallah ya ngi ré sa musiba. wallahi amoo door ah. saafaandu waaw Milton mi daa mel ne xamula sa bi dafay yàgg non xawuma déggoo li ma la wax kii xawuma dama laajte man maay borom àll bi loolu laa soxla ki yàlla ko bale waxay yàlla ko bale waxay saafaandu nañu tënk foofu nga ñëw ci sponsor muy maire Amadou waaw xanaa di ko nuyu di ko gërëm rek xam ne ñu ngi jàppale lam bu baax a baax xaas ndaw borom dëkk moom borom oh, Cobra. wallaay ñu ngi gis li muy ñu ngi gis li ñuy def bu baax a baax. wallaay ñu ngi koy gis bu baax a baax xanaa ñu gën noo jàppale si lamb rek. ndax lam moom loolu rek la woo ñuy waa di woo ñëpp di woo waa sama dëkk Mbaxaan Diourbel di woo waa kayaar di woo sama gaa yëpp ñu ñëw jàpp si combat bi quoi xam nga ne combat al fii moom dafa xaw a métti quoi mais ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si quoi kii maa ko mën foofu gars yi xam nañ ma xam nañ ma ñun kon Sococim bi moom miin nga ko ci kër gi laal laal waaw te man maçon laay liggéey xanaa rek ñu gën a jàppaat rek jàppale promoteur bu baax ndax mu ngi doxal lamb bu baax a baax daal. waaw. mu ngi doxal lamb borom Cobra ak original. waaw waaw waaw di dooleel Persidi waaw loolu tam baax na ci bu baax a baax. sponsor yi nañuy gën a ñëw rek ndax Persidi mi ngi jàppale jeunesse bu baax a baax a baax a baax wax dëgg fa yàlla. waa Cité Senghor namm nañ la te dañ daan mobiliser ba course ba di di di mel nu doy war. incha naka naka naka nga leen di woowee pour allahu rabbi bii moom mooy raw moom soobee yàlla ndax euh, combat bi nii. bon dañ maa yàgg di ma ko wax naan ma wutal combat wutal combat wutal combat wutal combat dañ ma ko yàgg a wax. te aussi tamit euh, waa Cité Senghor aw ma seen fay muy metti muy naqari ñoom dañuy ñëw dañuy ñëw man seen doom la aw ma dara tamit di woowaale tamit waa diaspora ku ci mel ni Pape Thiaw ku ci mel ni sama copain waaw moom da bële loxoom ñëw na bëggaat naa bi yoon tamit loxoom ñëw ñëwaat xam nga. Demba tamit di wo bu baakha baakha baakha baax ci tige yi le passé japon na ci open press beeg lepp mom mo def lepp wax deug fa yàlla ma koy woowaat bu baax mu ñew jappati bu baakha baax di wo mer nday ñang di wo mer nday ñang di wo mouvement ànd liggéey Thiès tamit ma ngi leni wo ñom tam ñew ñëw ci bu baakha baax di wo Cité sengok yeb di wo Cheikh ñang waaw mi nga xamanteni mom tamit day ci japp bu baakha baakha baakha baax a waaw mi ngi non dal amna après dal ñu gëna yaata rek bu soobé yalla sa way mi yalla may ma ndam ji mo door ko rek ah mu jeex. jël leen